bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu seen rajo ci seen jataay bi mu tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bés bu jot waxtu wi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci àndak seen mbokk Alioune Sall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 wala bu doon ñoom professeur ji bu ñu ne chapitre treize bu am solo bi ji riyaadu saalihiin al imaam toll ci defal ñu formation ci wàllu wut tuyaaba mu wan ñu ne bunti tuyaaba yi bariwaay gi kenn xam nu toll te sunu góor ga xaaj Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi wa radi anhu moo daan wax ne yowmal xiyaam nit taxaw ay fukk-fukkam ay benn bennam ëpp ko càggante mënu koo weesu waaw nee na càggante mënu koo weesu waaw rahmatullahi ali wa radi ngoog loo am solo la bunti tuyaaba yi dafa bari lool baaxaayu sunu boroom nag moo nu ko may waaw kenn kenn gisul lu tol noonu subhaanahu wa mu jaare may gi nag ci kim nu yónnee woon mu doon koo xam ne moom it na yónent ya mel te mooy al amaana seen melokaan yooyu daf koo mel yàlla mosu koo yónni dara ci nun lu ak siwut waaw wala lu mu dencal njabootam bàyyinu nun ñëpp la jàppee woon njabootam al imaam nag di ñu dajaleel ci bunt bii nu toll te mu tudde ko baabu alxad ala kasrati alxayr aw turuq alxayr waaw wala bayaanu kasrati turuq alxayr nun la ko tuddee nga gis ne fu ne imaam dugg na fa ngir indil nu lool bu ñu ko defee amu yiw hadis bi nu jógee muy démb mu nekk ñaar fukkeel ak benn nee na genn góor a ngi ci Madina goo xam ne digganteem ak jàkka ji mooy ki gënoon a sori jàkka ji ci jamono yooyu waaw mooy sori jàkka ji te du tar tardé genn julli naaj wu tàng week fajar geeg liw beeg tàngoor week julli gune fa la koy jullee waaw julli gu ne fa la koy jullee waaye xoolal kooku rek la ko yónnante ba wax alayhi salaatu salaam hmm? waaw toogal fa nga toog rek lépp yàlla dana ko dajale mu doon aw yiw sa jéegooy dem yi sa jéegooy dëpp yi plus sa julli ak yu ni demee rawatina julli mbooloo yi ngay def nu war a tàmbalee tey ci hadis bi ci topp muy ñaar fukkeel bi ak ñaar ñu ko jële ci abu muhammad abdullah ibn amr ibn al aas nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na arbauna xasla alaaha manihatul ans maa min aamilin yaamalu bi xasla minha rajaa thawaabiha thawaabaha wa tasdiqa mawuudiha illaa adxalahu llahu bihal janna allahu akbar alayhi salaam nee na ñeen fukki ñeen fukki bunti tuyaaba dafa am ñeen fukki quarante bunti tuyaaba dafa am ñu ne waaw mu ne bunti tuyaaba yooyee am na ca benn bunt bu ñu tuddee euh, wudd saw bëy walla ñàddal saw bëy maanaam dangaa tibb ca ñax ma tegal bëy wa ca kanamam waaw loolu mu ne tuyaaba jooju ki ko def te bëgg ca ngërëmul yàlla loola mën na ca dugg aljanna waaw danga am aw bëy nga tibb ca ñax ma tegal bay wu ca kanamam rekk dugg aljanna allahu akbar moo ko defalul aw bëy dugg aljaana boo ko defee lem xar nooy def boo yéegee ba defal ko mbaam looy am kon boo ko defalew fas looy am boo ci rombee ba defal ko nit nag looy am allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam arbauna xasla alaaha manihatul ans te kat nee na bu bay bi ci gën a kawe waaw mu yéen njëjëm suuf moom lu muy doon ba muy quarante nga xam ne jubbantil nit aw dàllam ca jàkka ji sax ca lay bokk jottali ko kurusam sax ca lay bokk ilaa axiri yi ilaa axiri yi bunta ngu noonu bu am solo ndekkete kon bu ñu xeeb sax tibb ci ñax mi tegal bay bi waaw bu ñu xeeb sax tibb ci ñax mi tegal bay bi bu ñu xeeb sax muus mi dëkk ak yow ngay añ teggib yax jox ko mbaaw suux bu fekkee laax lañu ñu añee muus bëgg na meew waaw muus bëgg na meew moom daa mel ni sax noonu lay noonu lay jooye waaw ndax bëgg na meew bu ñu xeeb sax loolu ndaxte kat boroom xam-xam yi jàngal nañu ne jenn waaye dafa ñëw yowmal xiyaam sunu wa sunu waajuru xaaj Ibrahima Saaxu mën na ko doon jàngal rahmatullahi alayhi wa radi anhu nee na su naw ay jëfam lool wàjj naw na ay jëfam lool daan ne sunu borom dégg naa ko am yërmande ga ne ko ne waaye man samay jëf laa bëgg ñu ma ci ñu ne déet mu ne ah kay indi naa lu doy sëkk waaw ah sunu borom ne ko ay ca mu tàmbalee lim ba mu ne julli yi ma julli sunu borom ne ko fayoon naa ko sa tànk yi nga daan doxe mu ne koor gi ma koor mu ne ko fayee naa ko sa bët yi nga doon xoole dara desu fi ah mu ne ko waaw mu ne ko naafili mu ne ko fayee naa ko sa loxo yi doon bankoo ko tàlli moog moom moog moom ba ba nit ki deseetul dara wala boog lim dese bëreetul te bu ca duggee xam na ne yàlla dana am lom ko ca wax mu ne ko léegi nañ bàyyi fu yoon wu nu jaar te jaar ci yooru yóoru yërmande mu ne ko ay ca sunu borom ne kon danaa la yërëm mu ne ko lu ma def ba ngay di ma yërëm mu ne ko ginnaaw sa jëf yépp lu ne tegiwul fenn mu naa ko benn bis da doon ba nga doon bind nga sëpp xalima gi ci daaji teg ko ci këyit bi mu toq ab toq toq bu tooy daaji aw weñ naaw di ca naan ca daajoo jee nga téye sa loxo pour bàyyi weñ wi mu naan ba pare bu weñ wi naanee ba pare ba naaw nga continuer sa mbind naa mu ne ko sa yërmande jooja laa la yërëma tey seet kon def lu baax la kenn wërte xeeb def ko ci nit ñi def ko ci xar yi def ko ci bëy yi ci nag yi ci gëléem yi ci mbedd mi waaw ca jàkka ja ci ndogul yi fépp foo lépp loo xam ne lu nit def la rek defal te xam ne lu baax la te xam ne yàlla nga ko denc boo liggéey bu la ko fayee danga naan xanaa kay du woon lii bunt boobu am na solo lool mbokk yi waaw beneen hadis bi muy ñaar fikkeel bi ak ñett ci bunt bi hadisu téeméeri ñeent fukk ak ñaar ci téere bi ñu ngi ko jël ci adi ibnu xaatim adi ibnu xaatim moom démbam téere yaa ngi koy nettali hadis yaa ngi koy nettali waaw ak siiraak taarix adi ibnu xaatim waaw euh, ca tab gaag mën a teral gan gaag yu ni demee waaye kerabam yendul la see sallallahu alayhi wa mu gis mu takk ak ceen mbaab caq mu def ab symbole yonent bi xool ko nana ah, ñoom day dañuy jaamu arbaaba min dunillah di ko baamte rek ba àddina ko ah man ñun de jaamuñu kenn mu ne ko ah kay lan moo dig jaamu mooy ku lay digal ngay def mu lay tere ngay bàyyi te digal yaag tere ya dëppoo wut ak digal yàlla dëpp wut ak tereem yaa ngi koy jàmm Adi ibnu Xaatim moomu moo ne yonente ba dégg na ci moom muy wax de ittaqullah ittaqu naara walaw bi tamra ittaqu naara walaw bi shiqi tamra waaw moytu leen sawara doonte xaaju tàndarma ngeen di joxe ittaqu naar ndekete nit mën naa joxe lu tuuti loola dox diggam ak sawara ëllëg ñu ne ha tamra tamra mooy tàndarma bi nga ñëw di bëgg ndogu yaa ngi toog ndogo yi ngi toog benn tàndarma ngeen am au lieu nga sex ko bàyyi ko nga xar tàndarma ba jox ko lekk wenn xar yonent bi nee na loolu mën naa dugal nit aljanna ah allahu akbar ab tàndarma nga yore doog jot na nga xaaj tàndarma bi jox kee jël benn waaye léegi wala bi siqi bu fekkoon kaasu kafe la moo ëpp siqu tamra waaw wala liibaru mburu nga yor di bëgg a ndogu am ndaaku ndaana ci sewet nga dagg lii baru mburu wa ca digg ba loolu moo ëpp siqu tamra wala ab yàkk la ab yàkk la nga yàkkal ko ndogu kon bu ne wallaw walaw bi siqi tamra mooy minimum lum tuuti tuuti loola mën naa fegal nit sawara itaqu naara walaw bi siqi tamra waaw ragal leen sawara dox leen seen digganteeg sawara wut leen lu lu musal ci sawara doonte xaaju ma lay doon xaaju tàndarma waaw léegi nag boo joxee ñu tàndarma mu sëkk nag ah kon nag la boo ko joxee ñetti doomi tàndarma nag mu rawate fa mu boo ko joxee kilo tàndarma nag mu tax ba demee ci réew mu mel ni réewu Makka al mamlakatul arabi saudia doog fekk la ci jàkka da nga yéemu sa borom léeg-léeg ci jumaay Madina nga séen ku indi Eh, lu mu lal li mu lal toll ni càlleeg saabur yi waaw mu tëll ko ci biir jàkk ji way woor yi tiim ko ñuy toogee côté sow ñuy toogee côté penku jàkkaarloo nga gis waa ji gaare otoom waaw waa di wàcce xeet yi ñuy dogoo yépp ba ci saay kafe kénkiliba lépp màcc ko wàcce tàndarma waaw wàcce bonbon teg waaw maanaam daal li muy wàcc lépp ci oto bi bëgg nit ñi dog ci chiq tamra rek moo tax mu def lii waaw toujours nga gis ko ci Makka ak Madina bu njëkk sax bi jamono melut nii dañ ci daan boole enveloppe bu njëkk bi jamono melut nii dañ ci daan boole enveloppe waaw nga xam ne waa ji képp ku ndogoo ca ndogoom loola lu gàtt-gàtt nga am ci suñu xaalis ñun senegal deux cent mille waaw deux cent mille ay enveloppe bi deux cent mille mu jox la kafe jox la tendrema boqalaw deux cent mille te kër bu subaa boo ñëwee amaat bu subaa boo ñëwee amaat nga xam ne léeg-léeg nit ne man teemaa umra ji ndekete umra ja dem ca yaa koy yóbbu waaye li ko yóbbu bokkut ak wa atimul xajj wal umrata lillah ngeen baal ma <laughs> eh, xam naa du noon sax waaye ngeen xam ne loolu daal ñu baaxa a nga koy def ci pénc ma sunu pénc mi nañ ci roy ndax loola njàngalem yonent ba lii it njàngalem yonent bee salawaatullahi wasalaamu alayhi kon am njàngaleem ki ko dégg daal koy tàmbalee jëfe raw ay moromam yu ko dégg naan ah ndeysaan waaw ñoo ñu dee ngay def loola fii it nag ci réew mi am na ñu koy def am na ñuñ fi xam ñoo xam ne nii ñiy def lañuy def waaw di jox ñu ni ñu do am na ñoo xam ne dañuy def ay concours tari alquran tabarkàlla am ñuy def concours ku dàq bind alquran lu ne ña ngi cee def jàkk yaa ngi fees jumaa yaa ngi fees ñee ngay invité Euh, ndogu débat waaw ñee reer débat tabarkalla ñee xëdd débat lu ne ñu ngi ko yëwiti yooyu yëpp lu baax a baax la euh, kon imaam mi ngi ñu jàngal turuxul xayri ni mu baree loolu ca la bokk beneen riwaaya ne maa minkum min ahadin illa sa yukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan alayhi salaatu nee na kenn ku ne ci nun jullit yi amul benn jullit ci ñun budut bés a ngi ñëw ëllëg yàlla wax ak yow te du am tarjumaan tarjumaan yàlla mooy bu yàlla ne eh, bu la nee nàngam am ku la ne yàlla nee na nàngam déedéet yow yàlla waaw ku ku traduire li nga li ngeen di waxante du fa nekk waaw neena na waa ji xool fa yanzuru ay mana minhu mu xool waa ji xool droitam bi mu xoolee ndey jooram gisu fa lu maa xaddama lëm lëm fa indi mu xool kanamam gisu fa lu dul maa xaddama lim indi mu xool bayna yadayhi ci ci kanamam fi sës ci moom gisul lu illa naara sawara tilqaa ji ci ci ci kanamam waaw mu ne kon nag fattaqu naara walaw bi shiqqi tamra fa man lam yajid fa bi kalimatin tayiba mu ne kon nag sawara moom mu nga xam ne dangaa xool sa kanam rek gis ko ah saraxel genn wàllu tàndarma ndax genn wàllu tàndarma mboobam mën naa dox sa diggante ak sawara ba doo ci dugg mu ne boo amul genn wàllu tàndarma yiwalal say wax yiwalal say wax allahu akbar bu kenn dégg ci saw làmmiñ wax ju naan ndo bu kenn dégg ci saw làmmiñ wax ju tax ñu téye sikkim mukk waaw fa kalimatin tayiba waaw boo amul chiq tamra fa bi kalimatin tayiba moom mën naa am te mooy yiwalal say wax yiwalal say wax mbokk yi kii dey bi yàllay wax ak moom côté yim xool yépp waaw côté yim xool yëpp côté bi ci gën a garaaw mooy côté bi mu xool ci kanamam jàkkaarloog annaaru sawara seet sawaraa gi nii ci kanamam te it boo moytuwut mën nañ ko caa sànni waaye su fekkee ne saraxe woon nag genn wàllu tàndarma ngir jëmmi yàlla yonent bi nee na genn wàll tàndarma googee mën naa dox digganteem ak sawara woowee mu ne su fekkee amul genn wàll tàndarma mu ne ah mu ne wax ju yiw mën naa wuutu tàndarma ba wax ju yiw mën naa wuutu tàndarma ba tabaarkalla wax ju yiw mooy wax joo xam ne ji du booy nopp du fatong fatoxal nopp te itam nit du ko dégg téye ci sikkimam am na solo lool mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam mooy jàngale hadis boobu loolu riwaaya la ci hadis bu njëkk bi nga xam ne ñu ngi ko jële ci adi ibn xaatim euh, tabarkalla hadisu ñaar fukkeel beeg ñeent ñu ngi ko jële ci anas ibn malik mu ne inna allaha la yarda an al abdi an yakula al akala fa yaxmudahu alayhi aw yashriba shurba fa yaxmudahu alay alayha allahu waaw waaw nee na ba neena yàlla tabaaraka wa taala dana gërëm yàlla tabaaraka wa taala la yardaa dana gërëm ab jaam bu lekk ak lekk ba noppi sant ko ca lekk ga ab jaam bu lekk ak lekk sant ko ca lekk ja lekk ga maanaam jaam bu ndékki ndékki ba suur daal ni alhamdulillah loola mën naa jural jaam bi ngërëmul yàlla wala mu reer ba noppi daal ni loolu mën naa jural jural jaam bi ngërëmul yàlla hmm? waaw danga te li nga lekk yàllaa la ko jox bu dee ndékki bu dee reer bi mu la ko joxee nga ndékki ba noppi daal ni alhamdulillah loola mën nga caa am ngërëmul yàlla mu jox la reer nga reer ba noppi ne alhamdulillah loola mën nga caa am ngërëmul yàlla naka noonu añ añ ba suur ni alhamdulillah ndax fi yàllay jaar ba nit ndékki ak fi muy jaar ba nit añ ak fi muy jaar ba nit reer ba demee ca euh, saar wa fa leen suru insaanu ila taami falyansuri l insaanu ila taami cey ila taami waaw yàlla mu ne boo tiimee ndoguli walla reer bi mu ne ah mu ne waxal ak reer bi le reer bi jàngal la xool ko xoolu jàng waaw fa yéet jóge bu fekkee mi ngi ci ndab li fa karoot jóge bu fekkee mi ngi ci ndab li fa nawe jóge fa suppi jóge fa soble jóge waaw ndeysaan fa fa fa jën jóge ak fa ceeb jóge ak fa ndox jóge waaw ak fa jéeg bii koy togg jóge ndeysaan jeeg bi ci la ma xam mbaa ko la jóge ñëw dakaar seete <laughs> togg ndog li taaj sonn lool ci wàññi plus kooram gi ndeysaan plus kooram gi yàlla mu ne xoolal loolu man mi la tàggatal jéeg bi mu dugal la ci waañ wi ak xol bu féex nag te waxaalewu leen bi mu ngi dugg ci waañ wi génn taaj la ceeb boo xam ne tabarkàlla mel na ni kooka dëkk ndar waaw mu taajal la ko sunu borom mu ne fal yansuril insaanu ila taami ku tiim aw ñam jàngal ci ñam bi xoolal mu ne xoolal ci ñam bi allahu akbar fal yansuril insaanu ila taami ku xool ciw ñam boo noppee danga nga ne alhamdulillah waaw ndax sunu borom bu fekkoon dégg nañ xam ji daañu xam ne bu doon sonn sonn na waaye lu la daj na ko ci nag ndax waaye moom du sonn annaa sabab naa ma sabba mu daj na ko ca suma shaq naal daj na ko ca fa ambat naa fiya habba daj na ko ca wa daj na ko ca waaw waxat ba daj na ko ca wa zeytuna wa naxla daj na ko ca waxaday xa xulba lu ne yàlla na la tàmbalee ci wis wisal ndox ma tàmbalee ci wis wisal ndox ma ba bëggee récolter mu naa ah, mu ne loo def maa yow ko ànd tàmbalee ca wis wisal ndox ma ba ni nga récolter mu naa ah, mu ne loo def ñoo ko ànd loo def ñoo ko ànd kon inna allaha la yarda anil abdi an yaakula al akala fa yaxmudahu alayha aw yashriba shurba fa yaxmudahu alayha alayha nee na jaam bi bu lekkee ba suur ni alhamdulillah ndékki ba ndékki ni alhamdulillah wala mu añ ne alhamdulillah wala mu reer ne alhamdulillah loolu mën na ko jural ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla dàq aljanna moo tax nga dégg radiallahu wa radu anhum wa ridwanun min allahi akbar waaw ngërëmu yàlla moo dàq lu ne tabarkàlla ngërëmul yàlla moo dàq lu ne ndax nekk ci biir mbooloo sa kilifa gërëm la ci àdduna ak a neex nekk ci biir mbooloo sa kilifa gërëm la ci àdduna ak a neex waaye kilifa gi ñu wax yàlla nag mu gërëm la amaama amaama thaqalayni loola dara dàqu ko yàlla nañ ko am yàlla na ngeen ko am koor gaa ngi dem yàlla na ñu fi bàyyi buy del siwaat yàlla na ñu fi fekk